sëñ bi ne ko nag yow sëñ Lappé maa ngi lay digal nga seet bu baax li nga xam ne weesu woon na ci sa dund na nga seet lépp loo xam ne wóor na le wóor na la ne baa yaakaar nga ne baa njort nga ne dana la tee dugg aljana loola nanga ko tuub tuub gu sell lepp lo xamna lu wessu na da nga jort rek ba nga xam wér ne li mën na la te dugg aljana na nga tuup lola lola la ñëk digal ne ko nak ma nga lay digalit nga xet lepp lo xamne ne moom nga ne ba yaakar nga ne li man na la dugal àjjana rek ci jëf yu baax ya nga farlu ci bu baax te takko lola way wa amuru lak aydan bi an tajtahida fi kulli ma tayaqanta aw rajawta annahu yuwaddika ilal jannati allati wa'ada al muttaqun mu ne ko maa ngi lay dénk nga digal sa wa dekk bi mo ñi nga nekkal ci sa dekk ba ñom ñëpp nga digal len ragal yalla ak jëfé digalul yalla ak moyu téré yalla mu ne ko yow ci sa bop ak ñi nga bokkal dekk ci dekk ba bu ngeen saxé ci lolu mooy ragal yalla ak jëfe ndigal yàlla ak mooy ay tereem di matal ko sëkk ci lépp lu yàlla digle na nga xam ne day yàlla dana la musal yow ak sawaa dëkk ba ñoom ñëpp nag ña ca kaw ci suuf ci tiiti bis penc ba mu ko daal bu ngeen matalee lépp lu yàlla digle rek da muccu ci tiiti bis penc ba incha allahu taala ne ko nag yittewoo gi nga yittewoo ci mbirum siraat bay laaj lan moo la ci mën a musal loolu day tegtale ne yàlla dalaa nar a jéggal rek say bàkkaar ya weesu woon waaw ne ko yittewoo daal gi sa xel nekk siraat nga yittewoo ko lool ba di laaj lan moo la ci nar a musal ngir nga mën a topp loola loolu day wane nag yàlla dalaa nar a jéggal sa bàkkaar yi wéy woon incha allah mu ne ko it nag boo ñëwee fii fekk si ma fii danaa la musal ci lépp loo xam ne mënoon na laa àggale jëmale ci ak texee di mu ñaan ne aadana allahu wa iyaakum maha minha yàlla nanu yàlla boole musal ci ak texee di